asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a safoo chaîne bi di info SN 221 ginnaaw ak daje bi nga xam ni war nañ daje kii di Ousmane Sonko ak doyen des juges mi du wéy tudd yaa xam jàll ak ki nga xam ni moo di Adji Sarr yi nga xam ni moom mi Adji Sarr kenn dootu ko présenté ci mille réew di Sénégal rawat na kii di Ousmane Sonko bokk fi nga xam ni mooy njiitalu Pastef bile waaye faro ci langue politique bi di Yewwi Askan Wi nekk jamono gi ñu toll nii mën nañ ne li nga xam ni moo di chef de l'opposition moom mi nag li nga xam ñaar ñi le tey jii war nañu jànnoo bu baax a baax ki nga xam ni moo di doyen des juges ngir kat ak janoo bi nga xam ni kat jox na si seen diggante bu baax a baax moom mi lee mën nañ ne léegi ni démb kii di Adji Sarr demoon na fréquentation bi nga xam ni teewal fa lenn ci ay jigéen ngir métti lu raxtaange ak teewul ak métti yi nga xam ni dañ koy teg soxna yii lee ba tax na moom mi lee teew na ci bi leen ndaje waaye ginnaaw jee loolu mën nañ ne ndaje boobu lee dafa mujjee jur li nga xam ne moo di folklore ci kaw li nga xam ne dugub si bi lee def na ak rumeur bëri def na ak li nga xam ni ba lenn ci jigéen yi sax bu ñu xoolee dañaa ñaawlu bu baax baax doxalinam boobu kat dugg seem bi leen ndax kat gis nañu bu baax a baax acte bi ak geste bi bëri bi nga xam ne ñu ngi bër aji duggee mën nañ ne commencé nañ génn lii di salle bi ba jiitalu jamono jooju sax ak moom la di jiitalu ñi nga xam ne ñoo yor ci wàllum jigéen ñi lay di femmes yi mën nañ ne moom moo jug taxaw ngir intervenir ci bile mbir kat ñu toog eggale li nga xam ni moom lañu doon def muy seen i manifestation muy seen i waxtaan bile ngir kat ñu déggoo bu baax waaye kat gis nañu soxna yi ñu ngi génn salle bi comme ni nga ko gisee nii ci image yi waaye moom mi leen jiitalu soxna yi jël na kàddu di artu ak di baax a baax li ni mel tey jii nag tey jii nga xam ni Adji Sarr mën nañ ne bii mooy ñaareel yoonam muy jànnoo ak ki nga xam ni moo doyen des juges bi lee wala kat muy ñëw ci ëttu xatu xibaar gi lee ëttu nga xam ne mooy attakaay bi lee moom mi di Sonko jamono mën nañ ne ñëwoon na tombe li nga xam ne moo di 3 novembre coow loolu yi fa amoon waaye tey jii moom mi lee aji Sarr ànd ak ñi nga xam ne ñoo di ñaari avocat mi lee di wéetu ci ki nga xam ne moo di maître El Hadj ak ki nga xam ne moo di maître Abdou Dialy Kane moom mii lee di maître Abdou Dialy Kane nag nekk na comme ni ko Dame waxee woon gis nañu bu baax ba yëkkateegul benn kàddu ngir fësal bu baax moom kii jàppale Adji Sarr la ndax kat moom mi lee maître Abdou Dialy ki mi bokkule ak ki nga xam ne moom lay jàppale du kenn ku dul Mamour Diallo ndax kat moom mi la avocat wu Mamour Diallo la waaye kat mën nañ ne maître maître mi nga xam ne mooy Abdou Dialy kan même bu nekkee fi nga xam ni kat moo di Mamour Diallo xam nañ bu baax a baax ni kat moom mi la kuy faroo ci ab kii di Adji Sarr la ndax kat mii moom mii ab Mamour Diallo ko takkee ci biir mbir di coow lu Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko bi la moom mii nag nga xam ni moo di Ousmane Sonko mun nañ ne jamono gi mu ngi ci lu tolloog quatorze avocats yi nga xam ni dañ koy plaider waaye mbir mi tey ji nag dañ xam ndax ñu pay dugg wala ñan ci ñoom ñooy dugg tey ji mun nañ ne moom mii di Ousmane Sonko Adji Sarr te ñu Ousmane Sonko mu ngi doog am jano bi nga xam ne da koy janoog ak doyen des juges boole toog ak nga xam ne moo di Adji Sarr loolu nag jamono ci ginnaaw mën nañ ne sax amoon nañ toog waaye boobulee Adji Ousmane Sonko rek moo demoon jamono ak kii doyen des juges tey jii nag tey jii nag ñu war a am def li nga xam ne moo di séance d'interrogation ngir kat déglu ma ca na xam jàll mi ne déglu leen ndax dossier bi dañ koy ordonnance xam ndax dañ koy yóbbu ci atte bu gën a mag ba wala kat dañ koy def noonu lii lu ci mënta am tey jii daal dinañ ci am lu leer naññ naññ waaye ci ginnaaw lool le mën nañ ne coow gi yëpp li ko waral mooy mars 2021 ba léegi ba mën nañ ne coow loolu fa la jukkee ba sax ak quatorze personnes génn ci ñàkk seen bakkan ci gileet ci li nga xam ni kat moo waral lii di Sweet mu nekk coow loolu xam ni foofu la commencé bu baax ci solo de massage bi la tombé li nga xam ni mooy jamono coronavirus bi nga xam ni daan nañ tere bu baax génn di am waaye nag lu ci mënta am yoon am na Sénégal te atte dina leer bis ni tey tey jii mën nañ ne ki nga xam ni moo di Maham Diallo dinañu xam tey ci histoire turam bi dafay dugg ci histoire am déet ngir kat dafay àtte lii di dëgg ginnaaw bu mu dégloo képp koo xam ni laal ci bilim mbir ndax kat noonu ko lenn ci avocat yi la sàkkoo woon ba loolu am na déglu na ñi nga war a xam ne ñoo concerné bi le dossier mën nañ ne ki nga xam ni dak moo di Pape Alé Niang ginnaaw ñi xiifalam gi nga xam ne déclaré woon na ko mu tolloon ci ñeenti jours bis ni tey jile mën nañ ne kat sonn na lool ba soxnaam si génn addu ngir xamle kat moom la borom këram sonn na nañu attu bala mu ñuy atte ndax kat loolu lay xamle bu baax baax di ko jëmle li nga xam ne ñoo di nguur gi lépp loo xam ne nañ lu mën a xew ëllëg rek nañu xam ne ñooy responsabilité ndax kat moom mi la di jëkkëram te jamono guñ toon ni lekkatul te gis nañu bu baax mënul sul taxaw rawat na lii di wax mënut ci dara ginnaaw jee loolu li nga xam ne ñoo di lion de la xam ne ñoo di Sénégal gi mën nañu ginnaaw bi ñu demee fii di Qatar ngir fubali uti ndam li jëli ko gannaaw defet gi ñu ci am tax nañu tey jii la ñu war a soit fii ci Sénégal leen nag mooy ndax dañ leen di joj delloo njukkeel am déet waaye Sénégal xamul defet lu ci mënta am ñu leen di ñaanal yàlla ñu ñëw ci jàmm ak salaam suñu tertu leen ñu leen di war a teertoo tey jii mën nañu sax li nga xam ni moo di Doudou moom tamit gis nañ bu baax baax ginnaaw bi nga xam ni dem na fii di fii nga xam ni xam ni ñoo di député opposition bi lépp mën nañu ki nga xam ne moo di Franck Timis gis nañu baax a baax coow li nga xam ne moom à chaque fois da koy faral di am ci Sénégal gile duñ ne xam naa Franck Timis moom bis bu nekkee Franck Gueye moom Sénégal gile mën nañ ne dara dootu fi desati ndax kat li nga koy tool fii fii ci xam ne ci Sénégal ci nord bi mën nañ ne ñu koy toppatalee ak dëkk jiñ li nga xam ne ci lu tolloog vingt hectares ci suñu suuf gi lee jamono gii mën nañ ne nag Sénégal gi lee nekk na Sénégal gi nga xam ni Sénégal pays de la Teranga la waaye kat ci ginnaaw pays de la Teranga boobu nañu bàyyi xel ni lu ci mënta am fi Sénégal jàmm ak salaam moo fi xaj ndax kat ñun ñoo bokk di añ di reerandoo ñun ñi policiers yeeg gendarme yeeg li nga xam ne ñoo di homme de tenue ci jël ba femme de tenue yi rawatina politiciens politiciens yi lee rawatina kat avocat yeeg avocat yi rawatina fépp foo xam ne Sénégal gi lee ndax kat dafa nekk dëkk bi nga xam ne am njaay am jóob la ba tax na lépp lu fi mun a am mooy jàmm ak salaam ndax kat loolu xaar ci bile réew di Sénégal ñi nga xam ne ñoo yor bànqaas atte ñu bàyyi xel waaye tamit ki nga xam ne moo di président de mu bàyyi ci xel bu baax a baax kat Sénégal la jiitee ngir kat Sénégal ñoo teg lu muy teg li ñuy teg ci loxo bu du woon ak sénégalais du dégg mukk son excellence ba tax na kat tey jii lépp lu muy def lu nekk na ci xalaat ni ëllëg dina fi jógee ñu uutu ko comme ni ko defee woon ci ki nga xam ne moo di Senghor ba ci Abdou Diouf tey ba Laay Wàdd ba tey di moom dina fi jógee keneen ñëwaat ba tax na war na am wooy bu rafet jëmale ko ci histoire am gile muy kat diggante Adji Sarr Ousmane Sonko bile ndax kat ñëpp dañ ne Macky Sall moo nekk ci bile ginnaaw waaye kat lu ci mënta am bu nekk tey jii dañ ci xam lu leer rawat na ki nga xam la ñuy xamee ni moo di noonu li nga xam ne nag moo langoo ci li nga xam ni moo di Ousmane Sonko bi léegi ginnaaw ak jàkkaarloo bi nga xam ne janoo na ko ak doyen yi nga xam ne génnee na ko ak bi nga xam ni tegoon na ko ci kaw table ba muy dossier yi nga xam ni dafa concerné lii di gendarmerie ak li nga xam ne moo di lenn ci ci ay juge ak tappale yi nga xam ne moom ne Ousmane Sonko waxoon na ko ne ay tappale kese ndax kat dossier bi amul benn yoon gis ni fu ñu ko ci mën a ba tax na sax mën nañ ne dem ak jàmbaarloo ki nga xam ne mooy doyen des juges ba bile yóbboon na li nga xam ne mooy di leeral bu baax a baax tey jii nag dañuy xaar ndax kat dafay indiwaat li gën a li ni mel wala kat dafay di ay vidéo ki vocal wala kat lu ñu mën tax am ñu ngi ciy déglu di xaar ba xam fan la wàññiti mu jékkatam ci loolee sax mën nañ ne kii di nga xam ne tamit moo di Adji Sarr ndax kat dafay indi ay vidéo wala ak vocal ndax kat a ñoom ñu leen di maître El Hadji Diouf mii lee nekk avocat am xamaloon na bu baax baax ñun yor nañ ay dossiers yi nga xam ne yor ay mbir yi nga xam ni bis biñ ko tegee ci table bi Sénégal dina dar gémmiñ na exobité ginnaaw na exobité te yi dina ni moom moo def waaye li ci mënta am bu nekk Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg wooy leen di amoon fi nga xam ne info sn ndax kat lu fii information ñu nekk indi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu